Euh, le président Diomaye Faye consulté woon na PDS bi muy formé gouvernement bi mais les noms qu'on lui a donné euh, gënalu ko woon. je ne suis pas ay rumeur la xaw ma je ne suis je ne suis pas sûr sûr et je ne crois pas a ça. ah gëmoo ko non non non non loolu. je ne pense pas aujourd'hui parce que je ne pense pas aujourd'hui que Karim puisse proposer des noms. Hmm. Mm. parce que man li ma gis gëm ko ci Karim mooy buggul kenn école au niveau du parti démocratique sénégalais. loolu soxor lay niru. bon je ne pas loolu laa loolu laa gis a góob. mais nag yéenewul kenn fekk soxor lay niru je veux aujourd'hui avoir mm-hmm. mais man sama gis-gis bopp ça sama analyse personnelle la ça n'engage que moi. Mm-hmm. bëggagul kenn école au parce que même boo ko seetee les élections de députés il fallait passer par ça mais le financement euh, la réorganisation du parti l'argent bi parti boo ko seetloo ci renouvellement yi on l'a fait pour avoir de l'argent hmm. parce qu'il y a des PDS qui sont là qui étaient prêts à financer qui étaient prêts à acheter des cartes membres loolu xaalis boobu jël di ko financer parti bi di ko doxee que c'est Karim Wade qui le parti financièrement je je regrette c'est pas lui je regrette c'est pas lui et s'il y un dirigeant du parti qui peut dire le contraire na génn bi wax le contraire le parti vit des moments extrêmement difficiles ña fay liggéeyee ils vivent des moments très très difficiles nous, nous on vit avec eux mm-hmm. on vit avec eux on est avec eux ils vivent des moments très très très difficiles et aujourd'hui même aujourd'hui même les 35 millions yooyu qu'ils ont déposé de en caution la yéen vous êtes des journalistes da da da nga geekoo fële fële. fan la jógee mais les gens les y a des gens qui sont corrigés y a des femmes yu yaay seen or. Hmm? ndax jom ji euh, Mamadou. à ce point. Mamadou moi j'ai moi moi j'étais au Qatar j'ai rencontré au stade Karim. au Qatar mm-hmm. au stade waaw. j'ai vu des gens. foofu la ngeen gisee. j'ai vu des gens qui sont très de vrais dem Qatar. faisant croire aux autres moo leen moo ndax bëgg ndax bëgg jàmm rek. Mhm. sac voilà merci beaucoup voilà voilà le mot. ils n'ont pas vu. alors que c'était pas le cas. ils n'ont pas vu de bu ñu ko lijjantul woon du ko am c'est des choses que nous avons que nous avons vécu ko ba tey bi ñu jógee. tey bu ñu ñëwoon photo photo bu ñu def ak moom. Mhm. c'est vrai li ñu gis mais ba léegi boo leen laajee ñu boo leen laajee duñ la wax dépp duñ la waaw mais dañ lay wax nii nii dama ñëw voilé rek pour sàng sutura sac bi et les gens ne peuvent pas vivre ça. est-ce qu'il parce que ki ma expliqué nii euh, njëriñu parti bi taxu koo jóg njëriñu Sénégal taxu koo jóg boppam rek moo moo ko moo loolu lay ndiru je veux quand même je veux je vais être démenti. Ouais. et je veux ne je ne peux pas avoir raison. Mm mais man loolu laa gëm fi mu nekk nii. aujourd'hui c'est ça mon combat que le parti prenne ses responsabilités. parce que ñu mel ne yow ñu mel ne Tafsir Thioye je sais bien que am nañu euh, ce qu'ils font en fait pour porter ce combat même Doudou Wade aussi c'est quelqu'un boo xam ne il a des positions très courageuses. man parce que aussi ñoom ñëpp ñoom ñëpp li lay wax ni kenn du ko ci wax. muy tax je suis d'accord je suis d'accord je suis sax il tire sur moi mhm. je je les comme des pères famille comme des comme donc am na foo xam ne mënuñu fa dem. Mhm. ñoom ñoom mënuñu mënuñu fa yegg. Mhm. mais te il faut il faut à partir. mais liberté bi nga am pour pour exprimer wu comme ça lan moo la ko may. mais li ma ko may mooy li ma Abdoulaye jàngal loolu laa xam ci moom. Abdoulaye aime la contradiction boo gis boo mm-hmm. boo gëmee dara da nga koy wax et Abdoulaye même aujourd'hui gis naa ko aussi ci Karim taxaw naa muy wax muy muy wax bon du wax lu wax ci Karim mais demandé ko seet di wax ne nit su bëggee dem fenn nii lay def ak nii lay def ak nii lay def mais bu fa ne yow man gisuma loolu muy wax gisuma ko moom ci Karim gisuma ko ci yow gisuma ko sama bopp mais du ma du ma teg ci yow mm-hmm. et c'est ça le fait donc aujourd'hui nit boo gëmee dara da nga koy wax da nga koy def donc c'est pas parce que c'est Karim c'est le fils de Abdoulaye Wade que doo ko attaqué wala nga yaakaar ne boo ko attaqué da nga attaqué Abdoulaye Wade non c'est différent mhm. Abdoulaye Wade est différent de Karim bokkuñu bokkuñu sa ñoom ñaar donc aujourd'hui la première chose mooy Sénégalais boo leen bëgg a jiite il faut nga am capacité wax ak wax ak nit ñi mhm. dem ci nit ñi mais boo amee un leader boo xam ne deful loolu je ne que loolu euh,